kon mbokk yi fi may tàmbalee dama am benn demande papa Seydina dama am benn càkkutéef dëmand bi nag xawma ci loxo kan laa koy teg mën naa ko jox papa xaar wala ma jox ko sama nijaay séeni wala ma jox ko imaam walla képp kuy woy jur wala képp kuy boroom kër te yilif soxna yu tedd yi dafa am bëna demande bu ma leen bëgg a te demande boobu dama ko àbbee man ci benn poète égyptien bu tudd Xaafis Ibrahim moom dafa am demande bu mu def ma bëgg leen ko def moom dafa ne man lii bi tarbiyati nisaa ana kan moo ma yaral jigéen ana kan moo toppatul jigéen nañu ma topp ana kan moo yaral jigéen ana kan moo may toppatul jigéen ndax nee na ñàkk toppatoo jigéen moo indi crise ak sous-développement ci lenn ci ay réewu penku kon man lii bi tarba bi bi tarbiyati nisa ana moo may yaral jigéen ana kan moo may toppatool jigéen mu ne al ubbu madrasa mu ne yaay école la isa adataha adata chaban tayiba la mu ne yaay école la soo ko toppatoowee ni mu waree toppatoo nga tout un te peuple boobu ay jikko yu tedd yu tey la ñu yor kon yaay ku mat a toppatoo la maa ngi ci demande bi ba léegi mu ne al ummu rawdun mu ne yaay tool yaay jardin la soo ko arrosé ak ndoxum kersa dina tóor tóor dina jibbi dina am ay fruits yu am solo kon man lii bi tarbiyati nisa ana kan moo may toppatul jigéen waaye ma wax ni itam waxuma leen nag yéen ñi ma jox demande bi ngeen boyal jigéen bàyyi ko ci biti muy def lu ko neex di dem fu ko neex di sol lu ko neex di nekk ci biir góor ñi lu góor ñi war a def moom jigéen mu bëgg koo def jigéen waxuma leen ngeen bàyyi ko ci biti ba mu fàtte ni am na lu ko war ci kër gi waxuma loolu de waaye waxuma itam ngeen xatal jigéen ci biir kër tënk jigéen ci biir kër mel ni jigéen wurus la woo xam ni bëggoo mu réer la mel ni jigéen meuble la boo xam ni bëggoo mu génn sa salon mu ne déedéet mu ne tatashakkalul azman jamono dafa wëlbatiku jamono dafa changé ñun ñëpp xam nañ ni jamono dafa wëlbatiku ci rôle bi jigéen war a jouer ci société bi ñun ñëpp xam nañ ñu ni kër yi ni mu demee léegi société bi ni mu demee léegi foog jigéen ñi jàpp ci tatashakkalul azman mu ne nag fa tawassatu fil xaalatayn nañu digg doomu ci ñaari situation yi bu ñu leen bàyyeeg liberté bu ëpp waaye bu restriction bi xatal bi bu mu ëpp ñu ne ko kon lu ñuy def mu ne rabbul banaat alal alal fadilati yar leen jigéen ñi ci tedd nga ci yiw ci mbaax ba jigéen boobu ñaari situation yooyu bu mu ci mën a nekk rek dina am sécurité lii ma wax nag Alioune jóob daf ci conscient xam ni jamono dafa soppeeku ci rôle bi jigéen war a jouer ci société bi moo tax mu ànd ak jigéen ñi groupement tuddee ko ànd laxasoo liggéey ñoom itam itam ñu am conscience ni yàlla bindul kenn koo xam ni mënal nga sa bopp lépp ay nit foog ñuy jëflante dama wax ni yàlla su ko neexoon ni mu bindee ay planète yu bari bind ay île su ko neexoon sëñ Mor nit ku ne yàlla teg la ci benn île yow kese nga dëkk fa yàlla mën na ko mais yàlla daf ñu boole pour ñu dund en société ya ayuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa xabail li taarafu li taarafu jooju nag yàlla nee na dama dama leen bind wuutale leen mais dama bëgg ngeen xamante xamante boobu du question noo tudd Assane nga tudd Paate nga tudd Faatu nga tudd yàlla dafa bëgg ñu jëflante Alioune Diop aussi conscient ci ci loolu yëpp moo tax mu ne kenn ku nekk ci ñun nañu indi suñu dërëm nañu indi suñu ñaar dërëm ndax mbooloo mooy doole moo tax conscient ni ñun dañu war a jëflante moo tax mu ne te ñoo boole suñu doole dimbalante moo tax man itam ma tànn leen thème boo xam ni solidarité la tudd mooy dimbalante thème la boo xam ni mbokk yi ak a yaatu kum giic yaatu na xóot na ay boroom xam-xam xuus nañu ci waaye comme que man dama am limite ngeen may ma géej googu di tem boobu ngeen may ma mayam ci tefes gi rek ndax man comme que dama rëgal géej su may sangu géej ànd ak xale yi pot yu baale su ma doxee ba fu sama tànk yam rek may tànk di sotti sama bopp kon tem bii di solidarité ngeen may ma ci 15 minutes mayam ci tefes gi ndax samay professeur ñu ngi toog solidarité nag dimbalante nag damay wax ni kër la kër këruk sutura la bâtiment wu sutura la yéen may topp solidarité kër la kër kër goo xam ni da ci suturlu di ñaan yàlla seeni doom ëllëg ñu ci suturlu di ñaan yàlla seeni sëtaati sëtaati sët di ci suturlu waaye nag mbokk yi kër goo gis dama wax ni tey su ma leen joxoon big ak fëy ne leen dessiner leen kër gi ngeen bëgg dëkk di ngeen ko dessiner ba mu rafet waaye yéen ñëpp xam nga fu ngeen nar a faussé di ngeen da ngeen ñiy defar plan sax architecte yi suñu dessiner ba pare duñ dessiner fondement bi te fondement bi moo ca ëpp solo yow mi bëgg jënd kër sax di visiter kër doo lijjanti sax. fondement bi nuñ ko defee léegi sax ci wàllu architecture fondement am na ñoo xam ne dañ ci spécialisé wu ñoom lañ koy jox dem nañ ba kiy tabax rez-de-chaussée sax suy tabax day prévoir ni ëllëg mën nga teg yeneen étage moo tax day dëgëral fondement bi comme que këru solidarité ngeen bëgg tabax il faut ñu waxtaanee fondement bi ñàkk fondement bu baax ci ay association yuy def solidarité moo tax association ba du dem kon mbokk yi solidarité pàcc bi ma ci waxtaanee tey mais quels sont wala quelles sont les bases les fondements de la solidarité wala les principes de base de la solidarité ñu bëri li ñu def fondement wala base ci solidarité moom lay mujj lu baax la nag lu neex la mais moom lay mujj mbokk yi pour yéen lan moo war a doon baas solidarité bu durable boo xam ne da ngeen ciy nekk seeni doom nekk ci seeni sëtaati sët nekk ca suñu bëggee suñu base solidarité dëgër am na koo xam ne foog mu bokk moo xam Caaroy la dëkk moo xam pikin la dëkk moo xam Cees la dëkk moo xam waa Mbaaw yi la àndal foog mu bokk xam nga sàcc yi suñu créé seen group whatsapp pour waxtaanee lu ñuy sàcce du ñu bëgg gendarme bu ci bokk waaye ñiy cotiser xaalis pour am xaalis suñu ubbee group bu whatsapp directeur banque mondiale dañuy bëgg mu bokk ci kon ñun suñu association bii ñu bëgg dimbalante suñu bëggee mu dëgër am base bu dëgër am na koo xam ni foog mu dugal ci loxoom. xam nga wolof dafa ni ndimbal na ca fekk loxol boroom wax ji dama ci am ñaari dégg-dégg dégg-dégg bi ci njëkk te ñun ñëpp ñu xam ko mooy ndimbal na ca fekk loxol boroom mooy yow mi ñuy dimbali dañ ci war a góorgóorlu nag dañ ko war a mérité mën naa ne sax bi yenn ordonnée commence parce que même mooy dégg-dégg bu njëkk bi waaye beneen dégg-dégg bi mooy mbokk yi ndimbal na ca fekk loxol boroom bi subhanahu wa suñu bëggee suñu dimbalante bi baas bi dëgër foog yàlla bokk ay su bokkul lu fi waay créé yàlla xam na la ca biir mais da koy neex mu bokk su ko neexul du bokk quelles sont les conditions yi ñu war a teg pour yàlla bokk yéen a may toog c'est di ran yàlla nee na du da ngeen bëgg ma dimbali leen bokk yàlla nee na à une condition mais man yàlla maa njëkk woote ndimbal dimbali leen ma ba pare parallèlement ma dimbali leen yaa ayuha allazina amanu in tansurullah yansurukum yàlla nee na du ma ci yem wayu sabbit loolu mooy fondement bu dëgër yàlla nee na su ngeen ma dimbalee man yàlla ba dimbali leen te damay dëgëral seen i ndëggu kenn du leen ba max ngeen daanu falaa xaaliba lakum kenn du leen noot mais lan mooy dimbali yàlla foofu la problème bi ne yàlla dafa soxla seen xaalis dafa soxla ngeen teggel ko natt lan mooy dimbali yàlla ci gàttal su ngeen bëggee yàlla dimbali leen nan la ñuy dimbalee yàlla mooy diineem jii ah ñu dimbali ko ci dimbali ay yonentaam dimbali kilifa diine yi mbokk yi wax naa leen ni islaam du ay fo kenn warul jaar ci kenn ku nekk ci yéen di yëpp islaam kon dimbali woo diine te bu boobaa yàlla du la dimbali yow boroom kër joxewoo woo dépense sa soxna lijjanti génn ci biti di dem marché taw bi soob ànd ak ngelaw taxul mu wàññeeku mu dem marché ci yoonu marché bi agressé nañ ko tuur nañ deretam mais mu ne déedéet sama boroom kër foog ma teral ko mu dem ndugg ca marché ba ak li mu yor dugg ci waañ wi lakk na ay yéreem lakk na mu togg ba mu baax yàkkal la taajal la yow boroom kër gi nga fil bool bi su la ko waxul it xolam jeex na ay islaam fa mu tàmbalee rey nañu nit ndax islaam tuur nañu deret ndax islaam ba mu agsi fii ñun ñu bëgg ko fowe nañu dimbali diine nañu dimbali kilifa diine yi ci mbiru diine nag noonu la bàyyi jàngale ci euh, an nasiix bu kenn dimbali kilifa diine ci ay tappale ci ci mbiru diine kon mbokk yi ci gàttal suñu bëggee yàlla dimbali ñu nañu dimbali yàlla ku ñu xool nga gis ci ñun diine bu kenn way su waykat bi xoolee sëriñ Ablaay ne ko yow ku la xool gis bàyyi lu mu bëgg a wax ndax Serigne laay dafa nuróog physiquement ak Baye Laye déedéet jikko yaa tax ku xool Serigne Ablaye gis jikkoy Baye moo tax yéen soxna yi ku leen xool rek na gis maam ku mëndooy ku leen xool rek góorgóorlu leen ba gi ba na gis sama maam jaara bu so góorgóorlu leen ba ku leen xool rek gis sama maam faa wàdd wele loolu mooy dimbali diine su ngeen ko defee nag parallèlement yàlla dimbali leen mbokk yi beneen bi yàlla nee na da bëgg ma bokk da ngeen seen groupement dangeen ngeen projet mën naa leen dimbali mais à une seule condition man maa njëkk a créer projet man yàlla kaay leen dimbali ma ci sama projet man it parallèlement dinaa leen dimbali ci seen projet ñu ne ko yàlla waxal mu ne yaa ayyuhal lazina amanu yàlla moo bëri teggin hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali yàlla moo ñu moom mais daf ñuy neexal yaa ayuha allazina amanu hal adullukum ala tijaratin turjikum doo leen ñëw yàlla mi ngi naan ñu doo leen ñëw ma proposé leen business boo xam ni dina tax ngeen mucc ci sama mbugal ñu ne ko loo bëgg من تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ني نكو يالا سونو كو ديفه با بار لو فاي من يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك فوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمن يالا نينا su ngeen bëggee ma bokk ci seen association bi ànd laxasoo liggéey ñëw leen bokk ci sama bos ñu ne ko loo bëgg yàlla mu ne gëm leen ma te gëm sama yonent mu wax lu am solo wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum jihaad ci yoonu yàlla nag waxul leen jël ay jaar jaasi takk ay bomb loolu jihaad ju ndaw ji la jihaad ju mag ji mooy suñu bakkan yi nañ ci nañ ci jihaat ci suñu alal ak suñu jëmm nañu ma déglu jihaat ji léegi xeex ak sa bakkan la am na ñoo xam ni munuñu ko am na ñoo xam seen seeni jëmm dañ cee laxas seen bakkan nañu ma topp am na ñoo xam seen alal dañ ci laxas seen bakkan ñi laxas seen jëmm ci ci ci seen bakkan mooy ñi nga xam ne seen jëmm yi yéenewuñ ko yàlla yii ni wuñ ko jaamu yàlla duñ ci sonn da ngay gis koo xam ni mën na tuj tëju ci toilette sangu 30 minutes sangu pour set mais jàpp sax tàyyi nag kooku jëmmam da ci laxas bakkenam diw bu cher mu jënd yére bu cher mu sol mais jëmmam yéenewu ko sax jàkka ji yéenewu ko sax daayira bi nañu ko moytu beneen bi ñuy laxas seen alal ci seen bakken mën nañ def million ci ay caaxaan mais lii dara mbiru diine ñu invité la nga def ci junni ci enveloppe bi leneen lu dul diine ay caaxaan nga def ci million ba pare dem nag doo yónnee yàlla nee na seen jëmm yii ak seen alal yi da ko def ci yoonu diine yoonu diine nag du daayira ba kase sa baay su soxlaa joxal sa yaay su soxlaa joxal sa njaboot na doon sa priorité yàlla nee na waaw su ngeen ko defee moo gën ci yéen su ngeen ko deful it moo gën ci yéen yàlla nee na su ngeen ko defee nag dinaa leen jéggal seeni bàkkaar tàbbal leen aljana te jox leen ndimbal ma nga noonu wa uxraa tuhibbuunahaa nasrun minallaahi wa fatxun xaribun wa bashiril mu'minin yàlla nee na li ma wax nag su ngeen ko respecté su ngeen ma gëmee damay bokk par force yàlla nee na su ngeen ma gëmee association bi dama ciy bokk par force ndaxte maa ko wax ba pare inna allaha ma al muminin yàlla nee na su fekkee ay muñkat ngeen par force damay bokk ñu ne ko waxal mu ne wasbiru inna allaha ma sabirin yàlla nee na su ngeen ma ragalee te rafetal dinaa bokk ndaxte inna allaha ma allazina taxa wallazina hum muxsinuun bokk yi defe naa ku jël yàlla rek def ko ci sa baasu association pour dimbalante dina dëgër beneen fondement bi mooy mbokk yi suñu diggante ñun ndax damay wax ne ay jullit walla ay doomu aadama suñu bëggee dimbalante am na yoo xam ne suñ ko mënul séq dañuy nax seen bopp nañu ma topp yàlla nee na comme que bokk naa man maa leen di njëkk définiral nu ngeen di commencé ci ci ndimbal bi moo tax yàlla ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wala udwan su ngeen di dimbalante na ngeen njëkkee dimbalante ci mbaax dimbalante ci ragal yàlla yàlla nee na moytu leen di dimbalante ci bàkkaar moytu leen di dimbalante ci noonoo loolu ku ko na ku nekk toog sa kër xam ne dañuy nax suñu bopp Seydina Limaamu ñëw ne alayhi salaatu wassalaam ginnaaw loolu yàlla wax li ma ciy teg mooy su ngeen bëggee seen dimbalante bi yàgg am na loo xam ne bu leen ko séq am na loo xam ne bu leen ko def seen diggante ñu ne ko lan la mu ne wala takaasaru maala dunia ëpp ay nit naka la ñuy bëgg dimbalante ku nekk bëgg ëppalante sa morom alal moo tax association bi pour dimbalante première cotisation bi ngeen war a indi xam nga mooy lan mooy makaarimal axlaax ku ne na indi jikko ju rafet waaye lan mooy makaarimal axlaax imaam ali radiallahu taala anhu dafa ne innamal makaarimul axlaaxu mutahara ma nga ci xasidatul asma mu ne ad diinu awaluha nit koo gis ñu ne jikkoom daa rafet te amul diine daf ñuy nax mu ne wala aqlu saaniha nit soo bëggee ànd ak ay nit di dimbalante dangay am xel mu rafet bëgg ànd ak ay nit di dimbalante te sa xel ñaaw baaxul beneen bi mu ne dangay am xam-xam bu sell bu ànd ak ragal yàlla ba ca topp mooy wala xelmu nit sooy ànd ak ay nit ngeen bëgg dimbalante da ngay lewet nit day lewet waaye waxuma ñàkk fayda nag nit dafay lewet beneen bi mu ne su ngeen bëggee dimbalante wal juudu nit da nga tabewul nu muy dimbali waate ku tabewul di korkoral ku muy dimbali dimbaliwul boppam sax ba ca topp wal fadlu bu la kenn gën bu bul nangu kenn gën la ci association bi ba ca topp mu ne wal birru bu la kenn gën a baax wa shukru na nga reconnaissant wa sabru sooy ànd ak ay nit pour dimbalante foog nga nekk foog nga nekk ku mën a muñ ñëpp a ngi teggi teggeegu ma ñëpp ngi teggi teggeegu ñëpp a ngi teggi teggeegu ma <laughs> ah, coow li day bari ah, ba ca mujj wa liinu nit dangay ngay nooy <laughs> neex a jëflanteel mbokk yi sang bi nee na sallallahu alayhi wa ay nit suñuy ànd bëgg dimbalante dañuy bëggante ay koo bëggul noo koy dimbali koo xam ne danga nga ko contre noo koy dimbali koo bañ noo koy dimbali sang bi nee na su ngeen bëggee dimbalante naturelement wala effectivement nit ku nekk li nga bëggal sa bopp moom nga war a bëggal sa moroom li nga bëggal sa bopp moom nga war a bëggal sa moroom sa moroom bi nga xam ba ci sa moroom bi nga xamul mbokk yi nañ ma topp ndaw si dafa yor classe di jàngal ay élève am xëy bés mu jox leen exercice wala devoir ne lii dafa metti ku ko trouver dinaa la defal kaddo xale yi di def exercice bi bi ku nekk rendre sa copie ndaw si avant moo corriger dana leen cadeau bi ay dàll lay doon ki ko trouver moom dinaa xam pointure am jëndal ko ay dàll bi mu ne ay dàll la kan laa gën a yab ci xale yi antalaay mu ngi ci classe bi maîtresse bi ne ay dàll la antalaay dafa mel ni dafa tiit dafa am lu tax maîtresse bi bi mu corriger copie yi ba pare ndekete ñëpp a mais problème bi kan lay jox dàll yi mu ne léegi kenn ku nekk na bind sa tur ci këyit nga lem ko ñu dugal ko ci pot bi ñu tiré au sort bi ko defee tiré turu antalai moo génn bi ko ne antalaay sa turu moo génn antalaay dafa jug di jooy jooy yu metti xam nga lu tax anta nga baal ma anta depuis daaw dàll yi mu doon sol daaw moom lay sol ba léegi day dagg muy defaraat ndax ay wuy seen loxo jotul seen mu joy remercier maîtresse am ñu dox maîtresse bi ñibbi diko netti borom kërëm la xew ca classe ba diko netti ba si yàgg di joy mom maîtresse bi jooy yu métti kër gi ne ko looy yow acte bi nga def dafa noble mu ne ko jooyu ma acte bi de mu ne ko bi xalé yi wàccee bi may ranger kayit yi di lemmi kayit yi di xalé yëpp kenn bindu si sa tur ñoom ñëpp turu antalaay lañ bind ndaxte ñoom xam nañ ni seen camarade de classe bi daaw ba léegi benn paire bi lay sol xaqiiqatul muumin bay la bay laay nee na dëgg-dëgg jullit mooy ki nga xam ni li mu bëggal boppam la bëggal moroomam waaye ñoom ci histoire bi dañu xam antalaay waaye dafa am beneen xale dafa bëgg tukki te train bi la bëgg jël train bi dina jaar dëkk ba mu ne mais su fay jaar day ralentir du taxaw te ci train bi la bëgg yéeg train bi dafa romb xale bi daw daw daw langaamu di yéeg bi muy yéeg benn pattu dàllam wadd te train bi allure bi mu commencé dawaat mënatul wàcc pour jëlaat dàllam pour yéen nu xale bi def benn patt bu mu desee da ko summi sànniwaat fa beneen patt bi wadd lu tax mu def ko ndax xam na ni benn patt bi mënu ko jëriñ te amaana patt bi wadd ki koy forit du ko jëriñ moom mu sacrifier boppam sànni ko pour ki koy for am ñaar mais am na ñoo xam ne suñu amul kenn am am na ñoo xam ne suñu naree ñàkk na ñëpp ñàkk sax kon jikko yii may wax ku bëgg dimbali nekk ci solidarité da nga koy moytu bàyyi laay nee na wacta ni boo an xiilin wa ay nit suñuy ànd di dimbalante dañuy moytu ay wax ay détails kii nee na kee nee na dégg naa baaxul wax baaxul ndax euh, imaam Malik dafa wax ni alam annahu fasaadun azimun an yatakallama al insaan bi kulli ma samia mu ne nit mu ne yàq gis nga mu ne loolu dara gënu koo doon ak yàq ñu ne ko mooy lan mooy nit koo xam ne lu mu dégg nettali wa kafaa bil mar'i kasiban la sang bi wax muy nit koo xam ne lu mu dégg nettali ko ndeem li muy nettali dëgg la sax baaxul day yàqum réew loo dégg rek ci internet bi xamoo ndax dëgg la dëgg la nga partagé ko tas ko sang bi neen nañ ko moytu bàyyi laay nee na suñu bëggee ànd dimbalante nañu moytu ñaaw njort ñaaw njort nañ ko moytu waaye yéen ki yor kees gi gis ngeen ni yi day sañse rek waaye ki yor kees bi sañse na oto de ñaaw njortu baaxul ci ànd waaye yow yow mi yor kees gi nag foog nga mérité confiance bi ah yow waa ji ñuy réunion jibi keesu jàkk ji sawaay keesu jàkk ji ñu ne di maa ibra lañ koy dénk maa ibra di jooy looy jooy waa ji itam ubbi poulailler woo majama bëgg ko dénk majama dem jëndi soble pomme de ak diwlin noonu <coughs> kii man moo tax sang bi nee na nañu moytu tooñ ci suñuy diggante nañuy jéggalante nañuy ku ku ñaawal jëmale ci ñun nañu rafetal jëmale ci moom sang bi nee na ay nit suñuy ànd dañuy moytu di suufalante gis nga diw la mu sol xool ko mi ngi ñëw gis nga la mu sol musóor ba di nuróowul ak sër ba di wokkante baaxul ci ànd ay yuubalit baaxul mbokk yi mbokk yi iñaan du dimbali kenn ku soxor du dimbali kenn ku siis du dimbali kenn ku bëgge mbokk yi du dimbali kenn fa may wàcc mooy li nga xam ni moom laa wax ni bëri na ñoo xam ne moom lañ def fondement base seen ànd solidarité moo tax du yàgg mooy mbir moo xam ne neex na lool mooy xaalis xaalis neex na lool waaye mbokk yi nañu góor góorlu ba fa muy jóge na lew xaalis lu mu neex neex nañu góor góorlu ba fa muy jóge na lew sama maam Maodo dafa wax ci zajrul xulub ni fa in tasali dunya fa inna xalaalaha xisaabun wa xabsun wal xaraamu uxuubu maam Maodo nee na alal ji nga yor te mu leew la sax alal ji nga yor te mu leew la sax bés pinc yàlla dafa mel ni daf lay tëj kaso da ngay nekk garde à mu koy lijjanti dërëm par dërëm foo ko jële foo ko dugal foo ko jële wax xapp suñ la maam Maodo day mel ni danga nekk kaso garde à vue le ñuy lijjanti foo ko jële foo ko dugal foo ko jële foo ko dugal waaye ki indi lu araam na wala xaraamu axoobu kooku mbugalam xaw ma nu muy doy mbokk yi ci principe de base solidarité nañu moytu di primer le capital sur l'humain maanaam alal ji gënal ñu nit ñi bu ñu alal gënal doomu aadama bu ñu alal gënal doomu aadama mbokk yi wax naa ni fi muy jóge nañu góor góorlu ba mu lew fa muy dugal nañ ko lew sang bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne kaab moo ko dégg mu koy wax sang bi ne xeet wu ne am nañu natt waaye man sama nattu xeet mooy xaalis mbokk yi nañu góor góorgóorlu ba xaalis bañ a doon suñu nattu ibnul xayim dafa wax ne xaalis soo ko yemalee ci sa loxo walla sa poos wala sa kalpe te defoo ko sa xol mu ne soo ci bërilee walla nga ñàkk ko du la sonal waaye nee na soo ko defee sa xol xaalis soo ko defee sa xol soo ko ñàkkee wala nga bërilee ko daf lay sonal mbokk yi xaalis nag dina noppiloo ko war a wax xaalis it dina wax loo ko war a noppi dina def loo nit lu nekk kenn daal laa xam ni xaalis mënalu ko dara te noonu laa bëgg ngeen ànde mooy ki nga xam ni dafa gore ba pare doylu ki nga xam ni dafa gore te doylu mbokk yi may wax ni sama maam Cheikh Ibra Fall wax na ni am fit du dëkkee xeex am fit mooy nga liggéey sa alal mu lew la doom nga mën koo joxe te yàlla rekk tax mu ne koo koy jàmbaar